asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di am mbégte gu rëy ak bànneex ci samedi bu jot ci waxtu wi bu ñuy jàkkaarloo yéen di joxe sunu xalaat ak li nga xam ne mooy sunu gis-gis ci réew mi di nuy mbokk yi nga xam ni ñu ngi ñuy teewlu fuñ mën ne ci biir réew ak bitim réew di rafetlu bu baax teewaay bi nga xamante ne bi yéen ñu koy teewlu di ñu bàyyi xel di ñu déglu loolu di lu am solo loo xamante ni euh, mënuñu ko gam-gamle wala natt mbégte bi fi mu toll ci ñun di rafetlu ñi bokk ak ñun gis-gis waaye di rafetlu ñi nga xamante ne bi aussi tamit bokk ñoog ñun gis-gis te di ñu bàyyi xel parce que loolu mooy àddina àddina euh, noonu lay doxee ñii dañuy ànd ci li nga xam ni mooy say gis-gis ñeneen duñ ci ànd mais ñooñu ñëpp euh, ñi ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni am nañ mbégte gu yaa ak bànneex ci jàkkaarloo gi mbokk yi tey dinañ waxtaane actualité dégg nañ ku mel ni Malick Thiandoum mi nga xamante ni bi mi nekk ca TFM yëkkati ay kàddu am loo xamante ni bi wax na ko ci ñi nga xam ni bopp bi ku nañ riir wutali Pastef mu joxe ci ay gis-gisam ak xalaatam loolu di ñu permettre ñu nit ñu am sunu xalaat ginnaaw bu mu xalaatee ba pare ci ay xalaatam waaye dinañ ñëw ci Ousmane Sonko lan la waxoon ci ay jamono ci ñi nga xamante ni bii tey ngay dem élection nit ña riir wutal si la ndax da leen a war a arrêté waaye ilaa nan nga war a doxale loola aussi dinañ ci déglu ki nga xamante ni kii mooy président Pastef di Ousmane Sonko di premier ministre bu Sénégal kàddu yan la ci yëkkati dinañ ñëw nag ci ki nga xam ne mooy Ablaye Sylla mi nga xamante ni bi eh, Ablaye Sylla mi nga xamante ni dem na ci ñi nga xam ne ñooy communauté guinéen yi nee na leen eh, bu ngeen ma votalee aw ma xàjj ak seen ne dinaa am majorité loolu aussi dinañ ci wax dinañ ci joxe sunu xalaat buñ ci jógee danañ ñëw ci ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany eh, mi nga xamante ni bi mu ngi fàttaliwaat kàddu yi nga xamante ni ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax euh, ngañ maître ngañ dem ba Touré waxoon na ko muy wax di fàttali nee na li nekk ci projet Pastef bi fan la ci Sénégalais yi toll loolu dinañ ci ñëw joxe ci sunu xalaat waaye Ousmane Sonko it artu na ñi nga xamante ni ñi ngi faral di attaque ay convam am na loo xamante ni bii wax na ko ay ñoñam benn waaye daf ma ko daf ma ko envoyé tey ne ma lii lu ciy sa xalaat donc loolu yëpp dinañ ci ñëw kon lii mooy li nga xamante ni bii tey ci lañ fas yéene jàkkaarloog yéen mbokk yi waxtaan ci mbokk yi dañu koy tàmbalee ki nga xam ni moom lañuy wax Malick Thiandoum nekk chroniqueur ca TFM yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci ñi nga xam ni ñi ngi riir wutali Pastef yan gis-gis xalaat moom la ci am ñu déglu ko ba ñëw soog a commentaire je vous en ñun soxlawuñu nga ñëw ci ñun. Mm. parce que li nga yàq Ousmane sonk démb ak bërki démb ñu ngi koy dégg. kon tey mënoo wëlbatiku ñëw ci ñun. nooni démb bu ñu ñëwee ci yow seeni pexe dafa jubul. Mm-hmm. c'est ça la vérité. Mm-hmm. cest diir mbir mi bu ñu ko raay raayal bu ñu ko bu ñu ko rafetal dafa rafetul. Mm-hmm. tey mois je trouve honnêtement. que Pastef soxla na ñooñu pour am majorité est-ce que ñooñu mën nañ ko indil dara je ne le pense pas moi personnellement. kaddu yi mooy yi nga xamante ni bii mooy yi Malick Thiandoum yëkkati mu nekk kaddu yoo xamante ni soo ko dégloo da nga naan ah boo deful ndànk rek nga ne ah Malick Thiandoum de li mu wax am na raison. mais man damay wax ni Malick Thiandoum moom it ab journaliste chroniqueur la bu am ab taxawaay boo xamante ni ñëpp gis nañ ko wax na ni nooni démb bu ñu ñëwee ne dañ lay jàppale seeni pexe jugul mais bu fekkente ni bii tamit tey Malick Thiandoum dafa ñëw di conseiller ñi nga xamante ni ñooy nguur gi est-ce que moom it pexeem jub na parce que bu fekkoon ne pexeem jub na jàpp naa ne li mu wax sànq ne noonu démb bu fekkente ni dañu ñëw ne dañ lay jàppale seeni pexe jubul waaye moom mii di conseiller tamit bu fekkoon te ni la mu bëggoon am na est-ce que dana taxaw di conseiller waa Pastef parce que li tax euh, ma wax loolu mooy bërki Dembo Njaay euh, dafa am kàddu yoo xamante ni bii yëkkati na ko moom Malick Thiandoum mu jëmale ko ci ki nga xamante ni kii euh, mooy waa ji nga xamante ni moom la booy yi doon Samba Ndiaye mi nga xamante ni moom la booy yi doon dal ci kawam Malick Thiandoum am na taxawaay bu mu ca amoon ak gis-gis bu mu ca amoon dafa taxawoon daanaka sax doon defendre ki nga xam ni mooy sàmba mais tey mi ngi taxaw di ŋàññ ki nga xamante ni kii mooy ñi nga xam ni daw si nañ wutal si Pastef euh, pour vous dire que ni gis nga il faut que waa Pastef ci jëmmi boppam ñu te jàpp naa ni sax def nañ ko muy xale yi gën nañu ñor journaliste yi parce que journaliste yi nekkuñu fi rek lu dul di créer benn problème boo xam ni c'est pour frustrer les militants ba max leen mais dañuy mel ni dañ koy def comme si dañ lay jàppale te jàppale la mais dañu bëgg say ñooñ fippu say ñooñ bu ñu fippoo am taxawaay boo xamante moo ngi daan ne li fi woon mi ngi fiwaat ba tey li fi woon mi ngi fi waat ba tey parce que nii nga xamante ni bii loolu lay waa Pastef doon bañ tey jii ñi ngi koy def kon mi ngi fi ba tey loolu la ñu bëgg a wax maanaam waxuñu pour ki ñëw mais dañu bëgg a wax yow mi nga xamante ni déjà yaa ngi nekk Pastef ba pare ñu sentir loola frustration maanaam nga mer daan ne li ma doon xeex démb ak bërki démb ndekete loolu mi ngi fi ba tey waxuñu ma woon lii parce que dañ def ñoom uniquement pour jublu loola fàtte loola liñ la waxoon mel ni léegi ñoo la gën a xam yow yëf yi te jàpp naa ni booy Pastef yi eh, ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi nga xamante ni bii ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi muy ndaw ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy eh, def yëf yi di liggéey ci yëf yi ngir mu jëm ca kanam ñoo gën a muus ñoom Malick Thiandoum yi parce que li tax ñu gën leen a muus moo dañ leen a gën a xam li xew dañ leen a gën a déglu Ousmane Sonko gën leen koo dégg ñoom nag dama jàpp ni ñoom Malick Thiandoum ñi ñu mel ni moom dañuy soog déglu usmaan Sonko waaye mosuñu ko woon a déglu ndaw ñi ànd ak Ousmane Sonko tey lu tax lu mel nii mën a am te nekkul ni ñoom ci seen jëmmi bopp faale nañ lii mooy dafa am loo xamante ni bii Ousmane Sonko waxoon na leen ko ñoom ñu dégg ko loolu lan la dañuy ñëw ànd ak ki nga xamante ni ki mooy euh, le candidat tête de liste Sonko mi nga xam ne mooy tête de liste parti Pastef mi nga xamante ni bi yëkkati woon na ay kàddu ci ay jamono wax ci lu mel nii lan la ci wax ñu àndandoo déglu ko soog a ñëw faram je la ñu nekk dañuy jëm ci échéance électorale sénégalais bu ñëw ne jàpp naa ne yow yaa ñu doy seen candidature moo ñu doy pour ñu defar réew mi ubbil nañ la suñu bunt li bon mooy nga def ko sur le dos du peuple sénégalais mooy négociation yu doon am ci ay séddoo ay post ay séddoo ay responsabilité wala loolu duñ ko def ak kenn waaye tey lu mel ni PDS su doon président lay waat dem na ba gis ni ñoom mënuñoo am mu ne waaye fas yéene mu banque samay yoxo ndax réew mi toll na foo xam ne il faut ñu defar ko te jàpp naa ni jàpp li ma gis fii Sonko laa yaakaar ni ku ko jàppale ñu defar réew mi da nga foog damay ñëw naan ko déedéet bul ma ñëw jàppale bu ñëwee joxe ndigal walla joxe mot d'ordre ñun on est preneur parce que politique addition la dañoo soxla doole waaye du nekk ci kaw boo boo ñu jàppalee dinañ la defal lii wala dañ la defal laal dañ la defal lii loolu du doon ñun duñu dil mukk ci doodee sénégalais. mbokk yi kàddu yi mooy yi nga xamante ne bi moom la Ousmane Sonko yëkkati ñuy félicité ndaw yi parce que saa yi jógee di manipuler di jéem a wax ni Ousmane waxu leen woon lii ñu fàttali ñi nga xamante ne bii ñooy manipuler ne leen Ousmane lii ñu waxoon ay kàddoom a ngi nii ay kàddoom soppiku wut. kon li xew tey daf ko waxoon lu jiitu tey ba tax na bu amee tey duñu jaaxal loolu mooy ñi nga xamante ni bi déglu nañ Ousmane ko te dégg ko ñooñu kenn mënu leen a orienté mais kàddu yi di ko delloo si day baax parce que dafa am ñoo xamante ni bi dañu dégg riir mi rek daa dee daw si tamit wutal si parti Pastef ñooñu nag ñooy ñi nga xamante ne bii ñoom Malick Thiandoum ak ñu mel ni moom ñooñu lañ bëgg waat baarewaat laaru ne leen xool leen fi ngeen jëm kii de waxu leen woon lii démb waxu leen woon lii përki démb te tey miñ koy dox waaye ñi nga xamante ni ay Pastef lañ démb ak bërki ñooñu fàttewuñu kàddu yi nga xam ni mooy usmaan Ousmane ko waxoon moo tax li xew dara du leen ci déranger lii nag mooy nga am gis-gis bu yaatu daal dee xam li la war te it ngay politique bañ a ndax nit ñi parce que bi Ousmane Sonko di wax lii boobu nekkul lenn lu dul opposant boo xam ni dafa jóg di wuti mais dafa teg ay conditions yoo xam ne mën na am ñëw ci kanam ne bu ñëwee nii laa ciy doxalee waaye nag bu ma ciy doxal dama ciy doxal doxal boo xamante ni bii du ma marchander ak kenn di waxaaleeg moom naan ko dinaa la jox lii wala dinaa la jox laa parce que loolu mooy li fi amoon danaa la jox lii danaa la jox laa ñëwal ci man ki nga xamante ni ki yaa daw lijjanti ji ko ngir mu ñëw ci yow waaye ki nga xam dafa ñàkk espoir di sauver carrière politique am daal di xam ne bu àndut ci lii maanaam carrière politique day jeex yooyu bokkuñu dafa am koo xamante ni ki yow yaa ko soxla Ousmane Sonko xam na ni ñiy daw di ñëw ci moom ñépp amuñu lenn loo xamante bii bi daanaka mën nañ ko koo indil waaw waaye nag ñuy sauver seen carrière nañ parce que mbir mi bërigo ci mbartal la bërëng mu dem bër mu dem ku ñëw nag jàppale teg ci loxoom danga nag naan ko dindil loolu yéen wut maanaam parce que ci politique lañ nekk loolu mooy li nga xam ne moom la wax li ñu soxla mooy lu dolliku mais pas luy wàññeeku diw génn na ci parti bi diw def na lii loolu luy wàññeeku la waaye bu dee diw dafa ñëw ne man dama lay jàppale sans condition loolu amul benn problème mais nag bu ngeen déggee ñu mel ni euh, ñoom Malick Thiandoum yi di wax da ngeen di defee ne euh, dañuy wax pour analiser pour delloo si leen li nga xamante ni bi mooy ay moral mais nekkul ni moral moo leen tax a jóg parce que ñoom ñëpp dégg nañ lii te ñoom ñëpp comprendre nañ yëf yi li xew tey ñoom ñëpp comprendre nañ ko waaye nag dañu nekk ci benn mbir moo xamante ni bi am nañ neneen nuñ bëgg yëf yi demee ko ci élection yi ñëw loolu moo tax ñu ne bu fekkente nit ñi daw nañ wutali leen mais ñun nañ fexe euh, daal de expliquer nit ñi ñooñu bu ko defee nga xamante ni bi dinañ indi ay frustration ci rang yi ñenn ñi ne way Pastef nekkatut ci logique bi mu nekkoon et cetera te fekk ne lii Ousmane ko waxoon na leen ko bu yàgg loolu moo tax ku mel ni eh, Cheikh Oumar Bamba Diagne wax wax ju am solo waa dafa yàgg wax jooju moo tax damay faral di am envie di ko répéter que ni Ousmane Sonko li mu dàqee politique ñii eh, dafa yéeme bu koy wax day defe dangay defe ne ay tagge la mais du tagge parce que xoolal ay waxi démbam résoudre nañ problème mu tey lii nga xamante ni bi tey bu ci waxutoon démb rek tey bu ñëwee problème lay doon mais démb fekkoon na mu wax ci ba noppi loolu mooy crédibiliser tey bu ñu tollee ci période bi mbir mi am xale yi daal di daw indiwaat vidéo yi nga xamante ni bii waxoon na ko ah deux mille dix neuf nga xam ni dara xewutoon lu dul ay élection lañ doon jëm deux mille dix neuf mu delloo siwaat vidéo yooyu ñu ñu delloo siwaat vidéo yooyu pour leeralee ko ñooñ 2024 parce que am na ñoo xamante ni bi boobu duggaguñu Pastef xamuñu déglu daawuñu sax déglu Ousmane Sonko parce que bu ñu ko doon déglu voteel nañ ko depuis ñooñu nga xamante ni bi daawuñu ko déglu nga xam ne ñëwaat nañ ci diggante bi ñooñu mën nañu bañ a xam li xewoon mais nag bu ñu leen ko fàttalee dañ naan ah kon ndekete lii kat sunu waa ji demut ba falu di doxalee ni ñëpp daan doxalee mais waxoon na lu mel nii mais nag nee na woon du marchandé du digaate ay poste naan damal jox ma lii ma jox la lii loolu du ko def ak kenn te loolu mooy li nga xamante ni bii ci lañ nekk kon nañu leen bàyyi manipuler bi te xam ni réew mi nit ñi nelawuñ nit ñi nelawuñ donc nañu bàyyi manipule bi mbokk yaa xarit yi dañuy déglu Ablaye Sylla Ablaye Sylla dafa dem ci communauté guinéen yi am na ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko ñu déglu Ablaye Sylla après ñu daal di ñëw leeral je vous am na déjà terrain boo xam ne 1000 mètres carrés la ci Diamniadio titre foncier boobu jëbbal naa leen. Aliou Ali wax na ko ci biir mais bokkuma ko woon wax dama doon bàyyi moom mu nettali ko ci gémmiñ parce que nettali ci ci gémmiñ borom la gën a nekk. parce que ci cité administrative ba la nekk fa gën a baax nag. boo hmm. xam ne fi mu toll nii mètre carré deux cent mille lay hmm. mais yàlla da doon xaar rek parce que man bañ ma koy jox damaa damaa lànkoon. mais yàlla moom moo ko jël parce xam naa lii la fi bu doyul. Hmm. danaa jël ñu ko taxawal doole ko ci. ce que. di leen ñaan aussi lii ñu jëm nga xam ne pour ñu def ko il ñu am majorité assemblée nationale. pour ñu am majorité assemblée nationale lu ma leer. te fii laa leen koy waxee. te boo leen ko defee di ngeen ko gis. Mm. mooy communauté guinéenne bi buñ ma buñ ñu wotalee. majorité mbokk yi Abdoulaye Sylla de lii la wax ñu bari nag euh, partagé nañ ma ko ne ma ndax dégg nga Abdoulaye Sylla li mu wax Abdoulaye Sylla nee na bu ko communauté guinéen bi votelee dina am majorité ci assemblée nationale waa gis-gis bi njëkk de mooy di ñëpp gis nan lañ mën a ñëwee ba ci réew mi ñuy fal ñu ne doomu réew mi mooy ñooy fale Ablaye la bàyyi fi doomu réew mi dem ci doomu guinéen yi ne leen yéen bu ngeen ma votelee yéen guinéens yi man de dinaa am majorité ci assemblée nationale suñu mbokk guinéens yëpp daa de tàccu ne ko wéy nangu nañ ñi buñ ko votelee mu am majorité nangu nañ ñi aussi tamit ñoom ay guinéens lañ si la nee na leen yéen guinéens yi su ngeen ma votelee dinaa am majorité assemblée nationale yi na ko wëy buñ la woteelee di nga am majorité assemblée nationale guinéen d'accord nañ ni ñoom ay guinéen lañ d'accord nañ ni tamit mën nañ koo voter léegi Abdoulaye la li mu def nii man dama ne dafa am lu xamante ni bi dañ ko doon wax nit ñi ne guinéen yi de ñoom ci seen jëmmi bopp dañuy voté ci élection yi ñii ne non non duñu ay guinéen mais Abdoulaye la dafa ñëw ba ci ñoom ne leen yéen guinéen yi guinéen yi ne ko waaw ñun guinéen yi mu ne leen bu ngeen ma voté lee dinaa am majorité assemblée nationale Abdoulaye Sylla dafa ñëw ngir yoole guinéen yi ne guinéen yi am nañu këyit wala dafa ñëw pour guinéen yi jàppale ko man c'est que foofu dama fa am problème ah man dama ne bon lan mooy jubluwaayu Ablaye la di dem ci Guinée yi leen bu ngeen ma votelee dinaa am lii moom dafa jublu ngir dénoncer Guinéen yi pour wane ni liñ daan ruu mandat di ko wax ne Guinéen yi kat biñ ñëwee dañoo ñëw non seulement di jëndi papier am seeni kii ak yooyu loolu la tax Guinéen yi avoué ko directement wala nakal la yëf yi demee man je ne comprends tey wax dëgg fa yàlla yëf yi lii lan la Ablaye Sylla lu tax muy politique bàyyi fi sénégalais yaakaar paloom ci guinéen yi te demandé wut assemblée guinée c'est que loolu mooy li nga xamante ni moo ma jaaxal ndax Ablaye Sylla dafa jub ngir dénoncer guinéen walla wala guinée wala guinéen yi ñoom da seen ne comprends pas lan mooy but bi ba tey lan mooy yëf yi lii lan moo ko sabab ndax ñun ñi ngi wax ne assemblée nationale lañuy ñuy bëgg ku am majorité di dem ci Sénégalais yi ñu ne da wàcc dem ci Sénégalais yi ndekete am na ñeneen ñuy wàcc ci beneen terrain boo xam ne bi du Sénégal waaye terrain Guinée yi la ñuy wàcc pour Guinée yi voté leen Tablaye si la dégg lu barki Dembo Ndiaye euh, premier ministre Ousmane Sonko wax ne ba mu demee ca euh, Matam ak yooyu ne leen am na yoo xamante ni ñi nga xam ne ñooy étranger yi ne leen yéen étranger yi. na ngeen xam seen bopp na ngeen xam ni élection yi seen yoon newu ci loolu mooy li nga xamante ni moom la leen wax ne leen élection yi élection yi Sénégal la étranger bu fi jóg ne dangay ngay jóg pour voter ji bu yeboo na nga xam ne lu la ca dal yaa ko teg sa bopp te ministre de l'intérieur dina jël ay matukaay yu mat sëkk ci yëf yi ginnaaw bi premier ministre waxee lool wax ni ministre de l'intérieur dana jël ay matukaay yu mat sëkk Ablaye la moom dem ca guinéen ndax dafa jub ngir dénoncer guinéen yi pour ministre de l'intérieur dem euh, wax ak guinéen yi wala lan mooy bitu si la li mu def man c'est que laa xamul ba noppi guinéen yi ñoom nangu na ñoom ñii ñoom ci lool lañ ne xam nga bi premier ministre waxee loolu xamu ñu kii kii kan mooy voté ak ñen ñooy kii waaye Abdoulaye Sylla moom ci jëmmi boppam moo ñu leeralal nañu gaayaa ngi ndax li mu def ab joxañ la ngir yoole walla dafa yaakaar ci ñoom ñu voteel ko parce que tamit loolu yeneen mbir la yoo xamante ni bi doo comprendre parce que mën nañu am na yoo xam ne peut-être Abdoulaye Sylla dafa jóg ngir dénoncer Guinée parce que mën na nekk angle boobu parce que jàpp ma ni war na ñëw parce que bu ñëwee ba ci ñoom war na leen a wax ne yéen ñii de wax dëgg fa yàlla ku ngeen war bañ cee tuddu yi communauté guinéen <laughs> non ça c'est extraordinaire ah premier ministre wax na ne étranger yi na ngeen toog seen place te xam ni élection yi élection Sénégal la kuñ ci gis ministre de l'intérieur dinañ jël ay matukaay yu mat sëkk ñu pare ci loolu yëpp Ablaye la daal di dem moom dajale Guinée ne Guinée yaa ngi nii gars yi est-ce que du yoole est-ce que du Guinée yi dañ leen a yoole te xamuñ dañ leen a yoole en tout cas ñoom nangu nañ ni communauté guinéenne lañ donc mbir mi nag mi ngi noonu Ablaye Sylla peut-être que ni ñaa ngi partagé ay mbiram mais mën na am. héros la <laughs> parce que je ne comprends pas da lan yëf yi naka la demee mën na nekk ni héros la mën na am ni moom dafa yoole Guinée yi waaw <laughs> jox leen terrain jox leen lii ak li mais yoole leen mën na nekk ni loolu waaw donc loolu mooy li nga xamante ni bi euh, jaaxal na ma daal wax dëgg fa yàlla waaw donc mbir moom moom vraiment man daf maa yéem quoi waaw yéem na ma jaaxal na ma mais nag li ci kanam rawuli bët incha allah je pense que ministre de l' gis na guinéen yooyu nga xam ne ñu ngi waaj pour jox majorité Ablaye la ban taxawaay la ci ministre de l' intérieur di ab donc loolu je pense que ni ñoom ñi ngi ci te xam nañ comme que Ablaye Sylla dimbali nañu ba yooleel ñu guinéen yi ba ñu xam ñii ñooy ñii donc loolu je pense que ministre de l' dina ci def li mu ci war a def mbokk yi ak xarit yi dañuy ànd dem déglu ji wax yi maître Ngagne Demba Touré waxoon moom la dellu siwaat ci pénc bi moom Bougane ñu àndandoo déglu ko soog a ñëw faram fàcce je vous en ñu ne ci biir projet bu PASTEF dafa am lu ñuy wax daawa ci daawa boobu bokk na ci ñu ne ñoom dañuy fexe ba nit ñi dootuñu jaamu seeni moroomu nit maanaam parce que jàpp nañu ne man Bougane murit gi ma doon di waate cheikhul xadim di nuyoo di sujjóot jàpp nañu ne man ñii kat dama wàcc yoon léegi pour ñoom seen projet mooy delloo suñu ñun ci yoonu yàlla waaw léegi ngeen noppalu ci sa àdduna ak sa ëllëg nekkal jaamu yàlla bañ a nekk jaamu nit koo daw ci ginnaaw dana la liggéeyloo ba nga dee te boo dee dafay yónnee bi ñëw jullee mbokk yi euh, Bougane waxi maître Ngagne Demba Touré la delloo siwaat ci pénc bi muy li nga xamante ni bi wax na ko woon wax ni nit danañ fexe ba nit ki du jaamu nit waaye jaamu borom bi subhaanahu wa danañ fexe ba nit dootul jaamu nit waaye di jaamu borom bi subhaanahu loolu nga xamante ni bii de moom la wax moom maître Ngagne Demba ture sëriñ Tuubaa de loolu lay jàngale bi mu ñëwee daf ñu xirtal ngir ñu jaamu borom bi subhaanahu alaaji Malick de bi mu ñëwee daf ñu xirtal ngir ñu jaamu borom bi bañ koo bokkaale lenn seydina limaamu bu kunta yonent bi sallallahu alayhi wa ñépp ku mës a dañ ne nañu jaamu yàlla te bañ koo bokkaale ak dara lii mooy li nga xamante ni képp kuy ab jullit nangu ko jaamu yàlla bañ koo bokkaale lenn amul benn sëriñ bu ñëw xirtal nit ñi ne leen jaamu leen ma existé wul amul léegi nag Bougane nag moom moo ci dugal ay commentaire parce que wax ji loolu la firi nit ki jaamu borom bi subhaanahu wa taala loolu ma jàpp ni képp kuy jullit loolu nga war a daw wutali Bougane nag da ci dugal ay commentaire boppam daal ne moom muy murit di su li muy sujjoot ak li muy def ak naan di waatee eh, eh, sëñ Tuuba di def ni di def li loolu yëpp mu ngi koy jël di yóbbu wax ji di ko yóbbu ci mbirum tariixa loolu moom la moom moom yëfi boppam la mais kii li nga xamante ni bi moom la wax mooy li mag ñépp wax te buggaan bu muusoon surtout que ni mu nekkoon nit ku intelligent dina xam ne wax jooju mënta peser ci balance électorale parce que élection daf fee romb te wax jooju ba mu rombee yàgg na kon nit ñi dégg nañ wax ji te xam nañ li maître Ngagne Demba Touré wax te nit ñi duñu ay jaay nit ñi xam nañ li leen mag ñu baax ñi woo xam nañ ni mag ñu baax ñi woowuñu leen ci seen bopp waaye dañ leen a woo ñu ànd dem ca yàlla donc Bougane bu xooloon dina xam ne ay élection romb na kon wax jooju bu fekkonte ni bii ca lañ moyoon ba jàppoon ci wax jooju échoué na maanaam wax jooju ku ci jàppoon pour yàq ay élection wala pour manipuler wax loolu dafa kadib mais Bougane nag il faut ñu mise à jour ko parce que man dama jàpp ni euh, iPhone 6 la fi mu toll ni mise à jour yu bees yi xajut ci nekkatul ci moom dama jàpp ne Bougane ci jëmmi boppam il est en retard dafa xamut moo tax mu ñëwaat ci kii boobu maanaam nit ki patensaay da gis nit ñoo xam ne amuñu lu ñu wax ñàkk am loo wax ba noppi nag bëgg di wax bëgg bari coow ci pénc bi nit ki boo amut loo wax da noppi noppi noppi lu am solo la noppi parce que wolof daf ne ku wax feeñ parce que boo waxee rek ñu jël say wax teg ko ci balance wax ji fa mu tekkoon ca jamono jooju ña ko doon utiliser sax amuñu ci ndam nga bëgg a ñëw ba tey nga bëgg a jëlaat wax jooju moo lay wan ne la amoo esprit créé même bu fekkente ne da ngay diaboliser da nga war a nekk koo xam ni da nga war a am xam-xam muus mën a diaboliser mais xoolal diaboliser sax bi muy jéem a def munu ko. parce que nit ñi euh, dañu dépassé foofu nga ne gis nga Sénégal réew la moo xamante ni bi réew mu spécial la réew moo xamante ni bi nit ñi nit ñu xam lañ parce que boo xoolee ni Sénégal demee ak nit ñuy voté nga xam ni nit ñi voté wuñu ci ay euh, diw ngëm-ngëm diine bii la ne wala tarixa bii la ne wala kii bii la ne nit ñi nekkuñu foofu wala wala xeet bii la bokk nit ñi nekkuñu ci point yooyu nit ñi d'abord boo ñëwee ne danga soxla réew mi dañ lay xool d'abord ndax yow lan nga ab sénégalais nga wala ñu ne sénégalais nañ ko déglu ñu déglu la nga wax ñu natt la ndax mën nañ laa mën a voter war waruñ laa mën a voter foofu la nit ñi nekk nit ñi nekkuñu ci cadre diw lii la diw laa la diw non nekkuñu ci point yooyu. Bougane nag ci point yooyu la ne moo tax ma ne Bougane ci politiciens yi nga xamante ni bi euh, maanaam moom carrière bu teel a jeex lay doon parce que dafa tàmbali rek dem retraite parce que il est en retard ci point yu bare bare bari dafa am lu bari lu mu umpale ba noppi dugg ci politique moom li mu jàppoon ni mooy politique dafa jàppoon ni politique xam nga dafa am ñaar ñoo xam ne dañoo dugg ci politique yoon yi bokkuñu Bougane dafa defe ne da ngay am xaalis soog a politique kii di Ousmane Sonko ne da ngay am ay idée am ay xalaat ci réew mi soog a politique Bougane nag wuti na xaalis ba yàlla am na lu mu ko may dugg na ci politique bu defu ndànk lim yoos day see ci politique Ousmane Sonko ay idée la wuti woon la am ay xalaat dugg ci politique moom ci jëmmi boppam idéem yooyu luy jariñ réew mi lay nekk mais Bougane dafa ñu woon jàpp ni moom dafay jariñ ay nit ngir nit ñu jariñ ko te kii dafa am ay xalaat ay gis-gis loolu la ko nit ñi dégloo ba tey taxaw di ko financer li nga xamante ni bii mooy ay campagne donc loolu mooy li nga xamante ni bii mooy mbir mi jamono ji nga xamante ni bii moom lañ toll nii du da ngay am xaalis bu njëkkoon da nga dañ bu nit daan politique dañuy wax ne kooku est-ce que na. mais Sénégal jóge na ci point boobu nekk na ci beneen point nekkatuñu ci diw est-ce que am na wala amut non nekkatuñu foofu fan lañ nekk mooy ci xool la yow sénégalais bi ndax li ngay wax méngoo na ak yoon wala méngoowut ak yoon ndax lu war a mën a ne la wala du lu mën a ne ndax kii di wax ak ñun jar naa jox réew war wala jarta jox réew mi ndax lan liñ lay xoolee dañ lay déglu natt la te foofu nag comme que fa la nit ñi toll wax dëgg fa yàlla te néewoo fa ci wàllu xam-xam booye boo nga bàyyi parce que da ngay perdre sa xaalis te wallaay dara doo ko jàpp perdre sa xaalis rek nga ciy def defe naa ni continuer ci say business parce que loolu nga xam loolu peut-être moom nga man continuer ci loolu moo la gën a arranger nga nekk ci yoon wi parce que vraiment euh, méngoo woog jamono mbokk yi ak xarit yi Ousmane Sonko dafa am kàddu yoo xam ne yëkkati na ko benn waaye dafa ma ko envoyé ne ma déglu lii lu ci sa xalaat loolal la ñu déglu Ousmane Sonko soog a ñëw faram fàcce je vous en li ngeen gis bi ñu toogee ñun ba léegi juróom benn weer gars yi mel ni ñu jëfur takk rajo yi taal télé yi suba ak ngoon wax bu bon bu ne ñu wax ko yàlla xam ne ñii dañoo am sens ñii dañoo am sens. boo gisee nag ñu jël seen lépp focaliser ko ci usmaan Sonko parce que dañu xam ni man duma koo xam ne sama moroom dina ma fontoo ma bàyyi la ci man xaw ma loolu duma tooñ nag man duma tooñ kenn du mësa dégg ni tooñ naa waaye nekk ak say moroom bis bu ne ñu xëy ne ñu ngi lay tooñ nga seetaan leen ci loolu ci ñàkk fulla la bokk ci ñàkk fayda la bokk te loolu mën na yàq réew parce que daf ci am ñoo xam ne ngeen jégal ma ci kàddu gi ay baadoola lañ bu ñu lambee mu nooy rek dootuñu arrêté bu ñu waxee nga bàyyi dootuñu arrêté Pastef li tax ñu résister pendant dix ans mënoon nañ def ni ñeneen ñi def bàyyi gaay taxañ ñu kon tey tey duñu yor réew mi dama ne et je lance un appel à tout les patriotes un appel à la mobilisation bu leen tooñ bu leen saaga bu leen xuloo waaye ku leen xosi xosi leen ko ku leen mbëj mbéj leen ko man li ma waxoon démb laay wax tey bu leen neexee ñu ne kii bëggul jàmm waaye jàmm boo gisee États-Unis ak Russie ku nekk di moyetu moroom xam nga lu tax parce que kenn ku ne xam na ni moroom am na bomb atomique te su ma ko dóoree mun na ma ko dóor loolu la ñuy wax l'équilibre de la terreur mbokk yi kàddu yi de moom la ma benn mbokk envoyé ne ma lan moo ci sa gis-gis ci kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati na ko maanaam dafa woote ab fayu loolu mooy li nga xamante ni moom la ma wax maanaam bi Ousmane ko da ko tontuwaale ci biir kàddu yi parce que dane bu yaboo ñu ne ko diw buggul jàmm waaye dóor fay loolu mooy li nga xam ne mooy di kàddu yi di signifié bi ñu bi mu waxee ba pare ma ne ko pourtant dégg nga ni yow ci biir kàddu yi man jàpp naa ni Ousmane ko tontu na la ci vidéo bi nga xamante ni bi moom la def soxlawutoon nga di ma ko envoyé mu ne ma lan la ma tontu ma ne ko daf la wax ne la ku dóor nga fay ndax yow ku dóor da nga koy seetaan mu ne ma waaye premier ministre la ñoom ñoo yëre nguur gi wax ji waru koo wax ma ne ko côté boobu mooy bi nga gisee mooy ñoom ñoo yëre nguur gi waaye jëfandikoo wut nguur gi foofu nga waroon a xool lu tax mu yor nguur gi ba pare jëfandikoo wut nguur gi ma ne ko loolu loo waroon a salier la parce que man dama jàpp ni am na ñoo xam ne bu ñu nekkoon tey ci position bi mu nekk dañuy jëfandikoo dooley nguur fayu pourtant jëfandikoo wut dooley nguur fayu ma ne ko lu tax xooloo ci côté boobu mu ne ma wax nga dëgg de ma ne ko am na ñoo xam ne bu doon ñoom la doole nguur lañuy jëfandikoo daal dee fay def lu gën a garaaw sax li nga xam ne moo def mën nañ la duma jàpp la tëj leen ma ne ko gis nga ni Pastef attaqué nañ ko ci Ndakaaru Pastef attaqué nañ ko ci Koungheul fekk nañ Pastef attaqué leen ñu ginnaaw bu ñu nekkee ci déy ca Mbàkke déggoo benn yoon bu ñu ne la Pastef attaqué na benn parti mais moom lañuy ñuy song te pourtant ñi koy song ñëpp moo leen ëpp doole ñu attaqué ko ñetti yoon ci campagne parti au pouvoir di wax chaque jour ministre de l'intérieur na jël responsabilité na def li mu war a def parce que dafa war a kii taxaw comme opposition nga gis ne utiliser wul benn yoon li nga xamante ni bi ñoom opposition yi moom lañuy xëy di ko jiiñ euh, Pastef fu ñu toll waaye li ñuy gis méngoo wut ak li nga xam ne moom lañ leen di jiiñ dégguñu benn yoon boo xamante ni bi Ousmane Sonko wax na ni ministre de l'intérieur jógal ci lii demal def lii demal def laa demal def la gisoo leen ko benn yoon et pourtant ñi ngi dal ci seen kaw saa su ne ñeneen ñi nga xamante ne bi ñi ngi yor caravane yoo xamante ne bi daanaka euh, ay nit bari wuñ ca ñoom ñooy wëlbatiku di dal ci kaw ñi nga xamante ni bi tey li ñuy drainer ci mbooloo kenn mu la parce que bu fekkoon ne Pastef mooy song moom musiba la ma ne ko yow danga war a salier yëf yi xool ni ah wax dëgg fa yàlla de lu mel ni mosuñu koo gis PDS bi Ablaye Wade nekkee ci nguur gi dañ doon yaataa yumbe PS bi Abdou Diouf nekkee ci nguur gi dañ doon yaataa yumbe ba Ablaye Wade fii la taxaw ñu ci dóor fayu leen luñ ci def def leen lii loolu yépp Ablaye yàgg na ko taxaw di wax PDS bi mu nekkee ci nguur gi doon teg fitna kenn teg ko fitna moom moo doon teg fitna APR bi mu nekkee ci nguur gi moo doon tege fitna tey Pastef ñoo nekk ci nguur gi ñoom la ñuy teg fitna il faut xool ci angle boobu lii mu wax nag man dama jàpp ni day wane ni rek utiliser wut moyen d'état contrairement ak tuuma yi nga xamante ni bii ñu ngi koy yëkkati di ko teg ci seen ndodd doxalee wuñu noonu utiliser wuñ moyen état. te mënoon nañ ko def comme ni ko seen morom daan defee mais defuñu ko loolu moo lay wan ne la ñii ak ñi fi nekkoon waroo nañ ñi ngi mel ni guddeeg bëccëg donc waxul kenn ne la jógal dem leen dal ci kaw diw waaye dana leen dajaloo leen dool leen benn bu leen tooñ bu leen saaga waaye ku leen xusi xusi leen ko lii la wax lii lan moo ci ñàkk jàmm man kay bu ma la rombee xusi woo ma du la xusi nekkal ci li nga nekk ma nekk ci li ma nekk donc il faut que ñu delloo ci xel yi te xam ni politique askan wi ñooy joxe ñëpp dañoo génn di laaj askan wi amul kenn ku war a taxaw ne fii man maa ko moom kenn du fi dugg loolu warul am ci wàllu politique ku ne fu ne nga war a ne fu ne nga war a wër dem fu la neex ci réew mi dagaan baatu askan bi le 17 sénégalais yi daal dee voté ka ñu jox majorité ñu ne kii moo jox majorité ña ca des tàcc ko loolu mooy li nga xamante ni bii mooy dëgg waaye topp ay nit fi mu toll nii tey bi campagne bi commencé ba nëgë ni blessé yi nga ci dégg yépp waa seef la attaqué nañ leen yàq nañ seeni kii daanaka ñoom rek ngay dégg ni def nañ leen ay kii te ñoo ëpp doole nag ci réew mi lu ëpp nag tuuru donc nañu delloo si waat xel yi mbokk yi ak xarit yi ñuy delloon encore une fois di ñaanal réew mi sunu borom dolli fi jàmm di ñaan encore une fois élection yi ñu jëm sunu borom may ñu élection yu dal nit ñi voté ñibbi ci seen kër ki ñu jox majorité ñu ñi nga xamante ni bii kii tàcc ko Sénégal continuer ci jàmm ak salaam loolu mooy li nga xam ni mooy dëgg te nit ñi wut ay idée te xam ni Ousmane ko lim am yëpp. nañ bàyyi ci li ñuy langaamu dara sababu lu ko lu dul jël tempsam di dem ci sénégalais yi di waxtaan ak ñoom ba tey lii mu am mu nekk liggéey bu yàgg boo xamante ni bi wàcc na ci kër yi wàcc ci mbedd yi wàcc ci marché yi xeebut kenn fukki nit juróomi nit ñetti nit mu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ba communication jàll ba mu am li mu am feneen fu ngeen ko dugal dangeen di nekk ci erreur nit la koo xam ni wax naag nit ñi nit ñi déglu nañ ko nit ñi déglu nañ ko bàyyi nañ ko xel tànn nañ ko ku bëgg a am li mu am faaw nga def li mu def mbokk yi jërë ngeen jëf ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje incha allahu rabbi beneen samedi ci kàttanu borom bi jërë ngeen jëf